dit nous ne nous emmerde pas il n'y a que des gens dignes et nobles dans les cimetières tu nous emmerdes à la fin ça fait deux ans chaque jour dans tu peux te suicider tu rendras un service énorme à l'humanité tu nous emmerdes à la fin tous les jours les gens meurent dans ce pays ñu yóbbu dans cimetière bi du sama papa pas na samay rak gaañu na samay mbok gaañu na fii bi ñepp a gaañule fi kenn donc si tu veux te suicider ñaari atu ngay bi tu vas te foutre en l'air et tu nous en laisse respirer yow ça yo bëggé xaaliss bëgg bëgg ci réew rek nga damay xaru damay xaru sa ay journaliste ba extérieur nan dañ ak dañ fen ngaa fen a fen ba jaxase réew mi jaxase nga réew mi jaxase nga nit ñi jaxase nga askan bi mais tu nous emmerdes à la fin mais fous-toi en l'air et rends-nous un service républicain merde tu nous emmerdes xaruwoo da ngay fen saa yoo bëggee xaalis pendant deux ans chaque mois damay xaru damay xaru gis nga ñi ñoo yambar dañu la waroon rey benn yoon noppal ñëpp et on rendrait un service à ce pays tu peux divulguer nag cet audio je m'en bats les couilles tu m'emmerdes à la fin seet siouma la boo lakkoon ba ñu lay suul sax jaale siwuma la dégg nga munoo en haleine pendant deux ans sa yo banqué bëgg coow bëgg yëngal réew mi rek ne waw damay xaru damay xaru xarul et tu nous emmerdes à la fin tu es qui tu t'es pris pour qui mais merde quoi hol boo bëggee mo wax la nan la ñuy xaroo kuy xaru du lak mat laawam kuy xaru da ngay jël quand tu as emmerdé tout un peuple tu peux mourir en paix va te faire foutre tu nous emmerdes à la fin tu nous emmerdes on est dans un pays où les gens ont faim les gens ont des problèmes les gens ont besoin de bosser les gens meurent tous les jours tu n'es pas la priorité de ce pays et tu n'es pas la priorité des gens donc tu te fous en l'air et tu nous rends un service républicain tu vas te faire foutre te man du ma yambar yi du ñii xam nga li ma la wax foo ma woo ma wuyu la fa atu silence nag ku ko def dafa am lu mu la téel taxaw ne nekk lii nag bu la neexee nga distribuer ko de woowuma la atu yàlla seetuma la atu yàlla ñëpp bëgg maa mbamb tue-toi et rends-nous un service merde à la fin chaque jour nit ñi dee ci dëkk bi da nga gën ñu ne ci armeer yi ñu gën a gore ñu gën a baax ñu la gën a diñ ñoo nekk ci armeer yi nga xaru nga noppal ñu doomu cottu ndayam bi